dal leen ak jàmm mbokk internet yaatal vision ñu dikk ak yéen ci la gën a fees ñu daal di koy door dañoo bëgg a dëgg dañoo bëgg a caaxaanee loolee nag la opposition bi daal di gis ginnaaw Macky Sall ay kàddoom yoo xamante ni yëkkati na ko nag démb nag loolee ñoom ñu ngi jàpp ne Macky Sall mi lee da leen a bëgg a pamti pamti rek fu ko neex jëmale leen looloo tax nag ñoom ñenn ci ñoom nag ñu daal di nag fas yéene gàntal li nga xamante ne bii moo di woote kii di président Macky Sall boobale ku ci mel nag Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi ko journaliste laajee nag ndax dina bokk nag ci dialogue boobule euh, mook Ousmane Sonko ni nga xam le nag ne daal ñoom ñaar ñoo ñële bu nu génnee bu nu amee liberté ci diggante foofu ak lëndi nag ngeen mën a bokk nag bu fekkente ne bii nag ñoom jàpp nañ ne war noo mën a bokk ci dialogue bi war di leen mën a ñëw ci dialogue boobale waaye nag li nga xamante ni mooy libération boobee nag moom mu ngay sukkandiku nag ci ay avocat ñoom nag seen i rek ñoo daal di war a bind daal di jébbal nag ñin ko war a jébbal boo ko defee nag libération boobee xëy na mën naa jaare foofee daal di sotti loolee nag xëy na avocat yi kii di Ousmane Sonko yi wala Diomaye Faye na nga ca biir loolee di ko liggéey waaw wala déet lu ci mënti xew daal mooy opposition bi lenn ci ñoom nag ñoom dañoo jàpp ne daal kii di Macky Sall leen ko soxlaa woon dëgg dëgg dëgg waxu ci muy mu jàpp daal benn date boo xamante ne bii moom lañ daal di def élection yi ci at deux mille vingt quatre bi ci lu gën a gaaw ci ginnaaw mois de mars bi nga xamante ne bii mois de février bi nga xamante ne dàqal nañ ko kon ñu daal di koy jàppoo ci mois de mars bi lee nga xamante ne moom lañu daal di dëgmal.